bismillahi rahmani rahimi wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallama wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu amma baadu fa fi nadmina masalikul jinaan fi xidmatil mutahharil janaan هذه الأبيات من زنني غير قديم المصطفى فإنني أخدمه بما استفى man zanani xayra qadimi almustafa fa innani axdimuhu bimastafa man zanani xayra qadimi almustafa fa innani axdimuhu bimastafa axdimuhu ila duxuli aljanna daari alqaraari walmuna walminna man zanna annahu yakunu abada يرضيه بالذي كخدمتي بدا فغره الضلال والإدلال ينقاد لي منه به الهلال مدحته قبل لدى لبرولي مدحا وانا عن مثله كل ولي مدحته مدحا لدى ما ينبى مها عيوبي وكف ذنبا مدحته عند أناس قلوى مدها كفاني العدا والبلوى مني إليه قمة قد لازمت روضته إلى القيام عزمت رضياني سبته الجيلاني عليه رضوان الذي أعلاني رضياني سبته أبو الحسن عليه رضوان يقلد الحسن رضياني سبته التجاني عليه رضوان مبيد الجاني رضي عن الخلفاء الأربعة قلت رضا المقربين المتبع من لم يكن عني يرضى فالكريم رضي عني رضا ليس يريم من لم يكن عني يرضى فالكريم رضي عني رضا ليس يريم جزى الإله المصطفى خير جزاء كما تقبل ووعدا أنجزا صلاة من كرمه يلقاني على الذي دون المراء ألقاني صلاة من كرمه يلقاني على الذي دون المراء ألقاني صلاة من كرمه يلقاني على الذي دون المراء ألقاني سبحان ربك رب العزة عما يصفون wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahi rahmani rahim qaala cheikh Babacar Jaxate loo xam ne daanaa ko sàkkoo kay dagaana ko wut lu sa jëmm ji ngi koy tuubi loo xam ne daanaa ko sàkkoo kay dagaana dul sa jëmm ji maa ngi koy tuubi xam ne daanaa ko sàkkoo kay lu dul sa jëmm ji loolee maa ngi koy tuubi lu dul sa jëmm ji loolam ndog la rekk mu rëy te bëgg lëf lu la mooy ak mooy la naa tuubi ablar bu bëggee lu dul sangam ba ak ndigalam ak mooy bëgg ku bëgguk mooy na far tuubi tey maa ngi tuubi te sakkoo mel na sedd sa xol fasoona maa saxalik soog toppaku tuubi mboolem lewey fare naa kook tuuba kook rafetal fasoona maa tàmbalik sellal akuk tuubi yaa set weles mësulaa dox sax fu taq lu bon setal ma ngir yàlla man mii taq bay tuubi defoo bon mësulaa def benn bés lu warul te waaju du lew da fen nës lu muy tuube kenn mës ta yàlla àqam benn bés ndara yow giñ naa naa ni wax ji soxlawul tuubi yaa xëy na doom ngiram yonan ba tey wéewéy ba yegg rek nga del yóbbu kuy tuubi moo tax ku ak yow kooka am tu liiw